Alors Queen trois catégories ñu nominé la ci nan la la def déjà. déjà c'est un plaisir liggéey ba ñu war ne la nominé nañ la ci trois catégories rek loolu mbëgte la donc ça veut dire que suñu liggéey inutile c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd nit ñi apprécier nañ ko ba boole ñu ci donc franchement dama si kontaan daal. 2019 2018 la puissance 3 génn mais 2019 clip yu am niveau nga génn ci leneen loo xam ne xamewuñ ko woon Queen Biz way bi am sens way bi am texte en plus de sa clip yi dóob comme on dit 2019 c'est 2019 la. waaw 2019 moom boo fàttali ko maa ngi ko doon wax ne woon naa ne c'est na ne yàggoon naa ne di naan mon heure a sonné xëy na bu ma ko doon wax nit ñi duñ ci bàyyi xel. mais c'était par rapport ak li ñu jotoon a liggéey waroon ko génnee waa loolu la. Mm. yow nomination du Sénégal kese Nigéria maa ngi gis ne ñu ngi lay nominé xaw ma Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ñu ngi lay nominé foofu tamit catégorie ak des grands stars yoo xam ne lan la la def Queen Biz. waaw c'est c'est c'était un honneur parce que boo xoolee Côte d'Ivoire moom c'est je suis nominée à côté de grandes stars africaines ay ñoom xam nga ñoom Tiwa ñoom Yémi loolu aussi c' était une surprise pour moi daf ma bett franchement bi ñu ma ko waxee aussi dama kontaan. fekk <laughs> ci niveau maa ngi gis gars yi voté nañ la bu baax. nañ bu baax waaw di sant sénégalais bu baax a baax a baax a baax. nga leen di poussé pour ñu voté la ak ay photo yu naaj. <laughs> waaw yi ñu ngi ciy jàpp bu baax. décembre bi nga génnee dernier single bi gis nañ ko demb léegi su ma la doon laaj single bi pour pourquoi nga xaar ba joxuñu ballon d'or bi Sadio Mané nga. ah Ballon d'Or Sadio Mané bi génnoon na bu yàgg mu ngi woon ci album bi mais bon c'était l'occasion ma jox ko nit ñi sénégalais yi gën koo xam rek loolu la ak Ballon d'Or européen bi ni te son bi nekk benn lu réconforté sénégalais yi man je peux parce que ñëpp ko apprécié dafa mel ni dafa danga nga wàccee seen mer. waaw sénégalais yi apprécié nañ ko te c'était l'effet recherché donc euh, jox nañ leen ko ñu bëgg ko daal. sant yàlla bu baax a baax a baax. <laughs> léegi ballon d'or bi lan nga ci wax lan nga gisee wala maire bi Sénégal yëpp maire moom. ballon d'or c'est derrière nous. <laughs> c'est derrière question mooy euh, Queen Biz nekk na artiste boo xam ne mën naa wax dañ day tooñ des fois sénégalais est ce que des fois du la métti des ñu sa vidéo yi des fois del si tooñ. non. artiste là il faut que may accepter di gérer il faut savoir gérer les choses et franchement j'accepte quand ñu mën a xaar. puissance 4 en force. bu baax. <laughs> jaajëf.